صحفت لي رب البرية البدن أزال أخاف من خلوني بددا صحفت لي رب البرية البدن أزال أخاف من خلوني بددا صحفت لي رب البرية البدن أزال أخاف is tey jàngoro yi murid yëpp jàngoro yi yëpp muy góor ak muy góor ak jigéen ñoo bokk jenn bokk jenn jàngoro suñ jàngoro suñ jàngoro mooy li sëñ bëgg te mooy li sëñ bi bëgg te mënuñu ko loolu rek nu metti loolu rek moo nuy metti waaye li sëñ bi bëgg buñ ko mënee waaye li sëñ bi bëgg buñ ko mënee dara mettiwul dara mettiwul kon yàlla mën li bëgg kon li sëñ bi bëgg yàlla ko mën murid yi liggéey bi nag liggéey bi nag mbal la tudd mbale la tudd waaye bale nag waaye bale nag ay wolof la ay wolof la mooy bale bale mooy bale dañ lay baal say bàkkaar dañ lay baal say bàkkaar waaw bale mooy dañ lay baal say bàkkaar baral sa wërsëg. baril sa wërsëg it. barkeel ko barkeel ko. kon loolu. kon loolu. koo dégg nag ku ko dégg. du lu du ñuy maye. du lu ñuy lu ñuy jaay la lu ñuy jaay la. njëgg nag mooy ñëw jëf. njëgg nag mooy ñëw jëf. ñëw gi nag. ñëw gi nag. bari na ay yoon léegi lool bari na ay yoon lool léegi. Western Union ngi fi. Western Union mi ngi fi. waree ngi fi waree ngi fi. li ñu li ñu wax. wéef li ñu wax wéef mi ngi fi. Orange Money. am am na Nescafé. Nescafé Nescafé. Nescafé it mi ngi fi. ubbi aw yoon. waaw ak ak ak lii ak Orange Money ak MoneyGram. loolu loolu foo ca jaar. nee yoon yooy yëpp yoon woo ci jaar. dana la indi ci dëkk bi indi ci dëkk bii di Touba. nga bokk ci li nga bokk ci ndigal li. waaye dégg ko waaye dégg ndigal li. te bokkoo ci nag. te bokkoo ci. Ah, du jariñ lu bari. du jariñ lu bari. ndax dégg moom. ndax dégg moom. baax na. baax na waaye amul njëriñ nag waaye rek am njëriñ jëfe rek moo am njëriñ kon nañ leen jëfe ndigal li Baye Fall yàlla na ñu Serigne Touba dimbali ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall sa maam ba nii ko Serigne Mountakha Mbacké bëggee ñu mane ko ni te defal ko ko làq ci ay ngërëm ci ànd ak yow fii nag yàgg nañ fee ñëw yàgg nañ fee ñëw ñëw ñu fi tey dong ñëw waaye yàlla na gën a yàgg nag waaye a yàgg nag waaye at mun fi ñëwetee waaye at mun fi ñëwetee barke borom ci barke borom barab bii muy Serigne Touba ak jëwriñam ja nga xam ni moo tuddoon moo tuddoon marché bii moo tuddoon marché bii di Serigne Fallou Mbacké mu dolli fi ay xéwal yu ni gàññ te barke liggéey bi bu baax a baax te yokk fan yi te yokk suñuy fan yokk wér yokk suñu wér yokk suñu wërsëg yi waa presse bi fi teew waa presse bii fi teew nag nee mi ngi ñaan ci barkeb Cheikh Mouhamadou Mountakha ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall kenn ku nekk ci yéen fa nga bëgg sab liggéey yegg fa yal na la ko fa Serigne Touba yóbbul te barkeel seen liggéey bi te musal leen nag ci méppum ndox te boole ñu jéggal ñun jullit yëpp nag ak murit yëpp nag ban am ngërëmul Serigne Touba ndax ngërëmul Serigne Touba kat mooy tax a tàbbi àjjana waaye ko amul ngërëmul sëñ Touba waaye ko amul Touba ah, sa mbir des na ko sa mbir des na ko ndax dañu dañoo yónni fii jamono ndax dañoo yoni fi ci jamono dinu tuubloo si dinu tuubloo si tuub nag tuub nag kuñ jéggal kuñ jéggal gërëm gërëm nañ la gërëm la kon kuñ gërëm kon kuñ gërëm kooku mooy dellu àjjana kooku mooy dellu àjjana waaye kuñ gërëmul nag waaye kuñ gërëmul nag fa nga jëm fa nga jëm yaa fa yóbbu sa bopp fa sa wax na lu bëgg wax na lu bëgg nan baax nan bu baax baax lin amul lu doy lin amul lu doy moom ñu gën baax Allah